sukkandiku waaye très rapidement dañu koy dooree affaire Ousmane Sonko Adji Sarr ñu gis ne que euh, doyen des juges Mahamad Diallo euh, euh, Maham jàllo jël na li nga xam ne moo di dossier bi yóbbu ko chambre criminelle bi nga déggee boobule xibaar du Doudou Coulibaly ndax am nga ci mbetteel. xam nga vous avez bien titré vous avez été très inspiré ci titre bi ngeen ne le procès de tous les dangers mais man danger bi xam naa ni. Euh, fi ngeen ko xalaatee ak fi ma ko xalaatee man du benn mm-hmm. ndax yéen conséquences yi ngeen di xalaat mm-hmm. man nag euh, le procès de tous les dangers li ma jàpp mooy tous les hommes sont en danger au Sénégal mm-hmm. képp koo xam ni góor nga fii daal sa carrière mun nañ ko def entre parenthèses le temps d'un procès parce que tout simplement benn jigéen jóge na fee accusé la de viol nga war a dem li ñuy woowee chambre criminelle mm-hmm. xam nga chambre criminelle mun nga mun nga di fa dem en étant sûr que yow defoo daal et que non ngay am mais psychologiquement xanaa bu ñu la convoqué sax police police sax bu ñu la convoqué rek jox la convocation rek. Mm-hmm. dalay stressé asantuma nga war a dem chambre criminelle loolu. psychologiquement day day day day dalay dalay traversé dalay bloqué fi tax ma ma ma ñëw ci argument boobu lu tax lu tax ma ne tous les hommes son en danger au Sénégal mooy gis nga viol loin d'être un, un commentaire sexiste waaw hein? non non déedéet voilà c'est ça non moi j'adore les femmes <laughs> je les respecte beaucoup mhm. mais li li tax xam nga bii c'est un fait un précédent dangereux gis nga viol dafa am lu koy matérialiser. Mhm. su dee les éléments concours nga jàll ci étape mais bu dee les éléments na concourent pas à ce que nga inculper nit ki doo ko inculper. effectivement viol nee nañu sur le plan médical dafa war a am lu ko attester. tout à mais sur le plan médical rapport gynécologue bi. wane na ni jour boobu ñuy wax am na viol ba andi plainte bi nee na y' a rapport sexuel. Mm. boobu un. Mm-hmm. de deux nga ne nga ne peut-être fekkee ni amuñu les les loolu les les preuves médico-légales ñu appuyer wu si ay témoins yoo xam ne ñooy taxaw. wax ni dégg nañu yuuxu wala dégg nañu ay ay ay bruit mhm. wala mas nañ leen confie ni kii daf may violer ba pare di ma teg arme y a pas un seul témoin mhm. sur cette affaire là mhm. kooku ne léegi man sax am naa ay preuve victime bi ni kii daf ma doon sàkku avec violence ñu ñu laaj ko preuve yi elle n'a pas été capable de donner les preuves muy ñett à partir de ce moment man li may wax mooy tu n'as pas besoin d'être constitutionnaliste pour xam ni Macky Sall de troisième mandat de droit à un troisième mandat comme tey jii noonu la ñu bañ a nekkee juriste bañ a nekk avocat bañ a nekk magistrat xam ni lii li si waroon topp mooy non-lieu total ndax Californie bi ko femme bi accusé de viol. il a fallu un certificat médical. waaw te te te amul certificat médical bu ko dañ koo dindi teg fee. Mhm. jël cause cause blessure bi. moo tax ma ne actuellement tous les hommes en son en danger. Mhm. et que su fekkee nag mag euh, euh, kii Ousmane Sonko taxaw na ne ni depuis début dañ koy complot. Mhm. dañ koy bëgg gëm nag. parce que tout simplement élément yi ñuy ñuy dégg ak li ñu jox fi comme information amul dara loo xam ne war na ko yóbbu cour d'assises chambre criminal à un mois des élections effectivement alors euh, euh, euh, doyan gis nañ ne que tey jii la décision dama xam Diallo elle est là donc Sonko Adji Sarr dañuy dem chambre criminelle mu nekk nag décision boo xamante nii ñi nga xam ne ñoo ay farandoo Ousmane Sonko décliné nañu ko ne c'est du n'importe quoi selon leur leur propos mais tey est-ce que gënul tey ci euh, avec tout ce chamboulement dossier bi yëpp ñu dem au moins procès pour mën a leeral élucider la la question pour une bonne fois. bon le doyen de juge Oumar xam Diallo ñaari possibilité amoon na ko. Mhm. benn bi xool mbir mi cla def ko proclamer ko non-lieu beneen mu xool aussi yaakaar na ne ay charges tegu na électoraux. donc mm. doo mën a nekk candidat ku ñu empris emprisonné plus de six mois avec sursis. Mm-hmm. da ngay perdre aussi sa droit civique. donc ça veut dire que c'est un risque pour lui. Mm-hmm. léegi nag boo xoolee loolu yëpp dafa mel ni Ousmane Sonko ñaari il doit faire face à deux fronts benn mooy le front politique on a emballé la machine politique. par l'intermédiaire de Mame Mbaye Niang qui a porté léegi le 2 février il faut mu def face à Mame Mbaye Niang par pour répondre aux, aux accusations de diffamation mm -hmm. beneen front bi aussi c'est le front judiciaire donc ça veut dire que Ousmane Sonko entre entre deux feux mhm. léegi nag réussira-t-il à s'en sortir ou pas en tout cas ses avocats organisent la riposte moom ci boppam aussi bàyyil boppam xam na ne à une force organisée il faut opposer une force organisée comme disait Lénine mais mais mais léegi nag il mm-hmm. appelle ñu ko ñooñam mm-hmm. pour ñu jàppale ko dans dans un sens. mais est-ce que est-ce que tamit euh, doyen de l'autre côté euh, aller en procès du mën a ba permettre Ousmane Sonko de soulever cette thèse du complot bi nga xam ne yàgg na ko wax peut-être devant la presse. en tout cas man jàpp naa ne devant les juges man jàpp naa ne. c'est dans l'intérêt de Ousmane Sonko ñu def procès d'accord c'est dans l'intérêt de Khady Sarr ñu def procès c'est dans l'intérêt de Sénégalais ñu def procès c'est dans l'intérêt de l'État ñu def procès pour que la lumière éclate mm parce que mu ñu nekk réew moo xam ne mars 2020 on a enregistré 14 14 morts mm -hmm. des morts sans coupable ak yeneen ak yeneen yu fi xewoon affaire u kii yaa ngi fii aussi nu mu tudd les 11 morts de de Linguère. Mm-hmm. sans coupable. Mm-hmm. la cour des comptes sans coupable. leneen ak leneen accident y fi xew ak yëpp fan yëpp mm-hmm. sans coupable donc il tellement de choses qui se passent dans ce pays et les Sénégalais ne sont pas élucidés dafa jot ñu leeral leen pour l'intérêt de ce pays parce que réew aussi ñun ñëpp ko bokk te dañu war a xam on a droit à être élucidé là alors euh, Elmat gis nañ ne que euh, Adji Sarr depuis lors elle réclame un procès euh, public comme quoi que am na ñu naan bu Sonko nanguwee ñu jàkkaarloo def procès public c'est ça sera le moment de déballage wax fa loo xam ne nii mara day taali sénégalais yi peut-être bëgguñu koon dégg wala day nekk une manière de jéem yàq der wala tilimal euh, deru koo xamante ni euh, dafa dafa dafa dafa dafa présidentiable. Mhm. est-ce que yow gisee nga ko noonu. voilà xam nga ay euh, soxna vraiment dossier bi nga xamante ni mooy dossier Adji Adji Raby Sarr. Mhm. dafa nekk dossier boo xamante ni Sénégal yi buñ ci séentu pour ñu setal ci Ousmane Sonko du mos a set ndax mbir yi boo commencé ci con ci porte convocation bi ba léegi porte plainte bi ci février ci yàq der lañ nekk parce que loolu mooy loolu mooy finalité bi d'ailleurs. Mm-hmm. Mm-hmm. procès bi maanaam bu ci sénégalais xam nga tey Omar Maham Diallo def na renvoi une ordonnance de renvoi nit ñi di ko métti lu nu woy mbir yu dafa da waroon non waroon nekk. Mm-hmm. parce que bu nekkee non-lieu Sonko day am victoire. ak ñi ànd ak moom. mu nekk na euh, renvoi ordonnance de renvoi Maître El Hadji Diouf mu ngi koy yéexu ne am nañ victoire ñoom maanaam dossier Ousmane sonk bi euh, finalité bi mooy élimination de nat politique. loolu moo ko tax a jóg. Mhm. te damay wax ne comme Adji Raby Sarr dafa bokk ci coalition benn bokk yaakaar. ki ko ah. ki ko wéy parce que. yaa euh, gis mu am carte waaw non coalition benn bokk Adji Sarr APR la Adji Sarr benn bokk yaakaar la. ndax li mu def seq na Ousmane Sonko tey ñu ngi wax ne bi muy def si déclaration bi dafa wax ne ndax ko mën na waat ne maam mosuñ seq dara seq bi du loolu la du loolu lañ ko accusé. waaw mhm. ah, mais viol la wax. li yéem ba nit ñi yéem bu Sénégal yi jàkkaar ne dossier bi ñu jëm nii muy procès Ousmane Sonko Adji Raby Sarr Sonko dañ koy condamné muy benn te du bokk ci élection présidentielle yi. Ah. wax na ne moom euh, personne mënu ko interdit pour que mu nekk candidat élection présidentielle 2024. mais Sonko saa yi bu waxee rek mu amal le contraire dans la mesure où Adji Raby xam nga bokkut ak Cheikh Yérim Seck ki ko jiimoon accusé ko. Mhm. Adji Sarr ak euh, xale boobu di ay Aïssata ay Aïssata boobu. boo doon def comparaison Adji Sarr dafa am ñu nekk ci ginnaaw Adji Sarr mën nga compter ay avocat am Ousmane Sonko avocat mi bëri na toll na fukki nit ak ñeent. Mhm. bëri na lool mais ñi koy dimbale ñooñ xam nañ leen seen finalité bi mooy Sonko du bokk ci élection présidentielle yi. xam nga Ousmane Sonko démb ci déclaration bi. dafa wax yow foo jëlee sa source yi. non source yu leer laa lay wax Sonko ne participe pas du bokk dañ koy éliminer la preuve moom wax na ko ci démb Sénégal yëpp ko seetaan mu li tax dossier bi waru nekk. dem renvoi yoru dem procès parce que toutes les preuves yi nga xamante ni mooy mandarga que dossier bi nekk non lieu teg na ko ci table